yow mi nga xamante ni taal nga sa taal ba ñëpp jafal ci bay tàkkale waroon laa gërëmee teraanga boobu nga doxal sa diggante ak ñoom bari na ku néewoon ci xur ku ñu xamul sa mbaax nga génne ko fa sang ko ba àdduna gis ko bari na ku yaakaar woon dina egg fi mu toll ci teraanga yàlla jaarale sa wërsëgam ci loxoom ba mu jot ci ba mën a tiitalu ñooñu ñëpp bu ñu tourné jël ay jaasi waroon laa delloo aaya bi yàlla wax hal jazaa'ul ihsaani ilal ihsaan ndax bu leen nit defalee teraanga war a ko delloo waaye jaasi jooju la ñu jël tey di ko dóor ci sa kaw ba mu mel ni teraanga musul dox sa diggante ak ñoom bugaan maa ngi lay ñaanal yàlla yokk sa teraanga yàlla gën la jàppale yàlla suturaal la aka bari ci ñoo taal aka bari ñu foogul woon ni dina ñu dawal oto aka bari ñu foogul woon ni dinañu mos a yegg avion yàlla jaareel ko ci sa tur ba loolu lépp di daw ci seen ay loxo àdduna di leen tudd njukkal loolu rek lañ la waroon delloo. waaye kenn ci ñoom warul woon tur na jël jaaseem di la ko gore ak lu mën a xew ci àdduna yaa jiital teraanga ci ñoom ba pare maa ngi lay ñaanal yàlla yëkkati la yàlla sàmb la yàlla aar la ci barke borom bërëb bii di yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Imam Darame wax jii may wax yow yaa moom dangaa bokk ci ay boroom xam-xam te yàggul ak léegi ñu commencé di la déglu li tax ñu lay déglu nag lenn kese moo ko waral mooy opposant bi nga doonoon xëy yàlla dogal ña nga doon dimbali yàlla teg leen ci kaw loolu nag programme yàlla la bis boo nangoo xuli laahuma maalikal mulki ba wax ko ci sa gémmiñ ni nguur gi sunu président yor ci yaram yàlla moo ko ko jox kon war nga nangul Bougane Gueye Dany ni télé bii mu yor ci wër wërsëgam yàlla moo ko programmé ci moom waaye yow da ni bu nu jaaroon ci yoon Bougane warta am télé kon boo nangulee président ni yàlla moo ko fal nanguloo Bougane ni yàllaa ko jox wërsëgam kon sa xam-xam du xam-xam boo ni nit war na ci jàng mu koy tiitaroo nañu leen bàyyi xel xadis bi yonent bi di wax man kaana yuminu billahi wal yawmil axir fal yaqul xayran aw li yasmut imam bu ngeen dematee ba toog ci plateau yi de leen wax lu baax bàyyi leen goru yàlla yi ngeen ni futti seen deri di ko solal ñeneen ngir bëgg ci kàddu bu leen ñooñu nawee wala ndomba tànk buñ teg ci seen loxo ndax gis ngeen yii nii nekk suñu kanam muy oto yi muy kër yi yëpp dañuy génn àdduna bàyyi ko fi koo gis rek njortal ci moom njort lu rafet ndax na nag falaa tuzakku anfusakum wa huwa a'lamu bimani ttaqaa nangulal président li mu am ni yàlla moo ko ko jox kon war ngaa mën a nangul Bougane Gueye Dany ni lii mu am yàlla moo ko ko jox te itam nag ma nangul wa ma min daabatin fil ardi illa ala llahi rizquha képp kuy dukkat ci kaw suuf yàlla mu yor sa wërsëg kon yàlla démb ci ësal waxoon na ne am na ay nit yoo xam ne ci wërsëgu Bougane Gueye Dany incha allahu ci la ñuy dunde imam sa ay wax kilifa dafay demee xam-xam di demee dal di demee yar message bi nag gën du ma ko firi dalilu aqlil mar'i xawluhu dalilu ilmihi fi'luhu assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu